ñu ngi fi Thiès ñëw fii pour euh, inaugurer ay infrastructure ñi nga xam ne chef d'état-major général moo ko réaliser ko maa ngi koy féliciter bu baax a baax ndax liñ fi gis tey vraiment day tax élèves officiers yi dinañ nekk ay conditions yu baax pour mën a et en même temps mën servir Sénégal loolu moo am solo dina wax ni tamit que infrastructure yi dina accueillir yenen euh, militaires yenen élèves officiers ñu euh Afrique ndax euh, depuis 1981 école bi mu ngi former euh, ay officiers yu bëri ma ngi féliciter tamit le général Keita Kélétigi numéro un bi nga xamné mo le premier commandant l'école té école bi légui kuko ko moy le commandant David Diawara donc diko féliciter mom tamit ak euh, l'ensemble de l'équipe De du ma fàtte tamit suñu architecte ndax moom mi, monsieur Touré liggéey bi moom li mu def liggéey bu rafet la te mën nañ wax ni tey que euh, la montée en puissance li nga xam président de la République wax na ko ci euh, plan bi nga xam ne tëral na ko fii ak deux mille vingt cinq ak juróomi at ñi ñëw dinañu changer lu bare ci suñu armée ci formation mais li gën a am solo formation il faut nga am ay nit mais ay infrastructure tamit loolu yëpp def nañ ko général maa ngi lay